foofu laay dellu parce mhm. yow mënoo nekk euh, sëriñ mhm. taalibe bi loo bëgg mu jox la ko ne la yaa ko yeyoo mhm. kër gu rafet ñu ñu dajee tabaxal la oto bu rafet ñu dajee jox la àddiyee tool ya ñoo ca gaaw léegi bu demee ba taalibe bi soxla la ne la nanga ko ñaanal wala tey mu génn àdduna wala taalibe bi taxaw tey xëy na ñoom ñëpp ñu doon di sénégalais ku nekk di xëccoo nga wut sa péete su boobaa buñ la weddee yaa yow yaa sa bopp parce que tey buñ la mbàkke ni si wala ñu ne laay wala ñu ne kunta wala ñu ne ñas mm. dangaa war a respecté ñi nga xam ne ñoo mm. bàyyi seen ndey bàyyi seen bàyyi jël la teg la seen kanam yëkkati seen alal jox la seen bopp jox la seen alal mm-hmm. kon ñoom warloowuñ tey sëriñ su ndaw si du ñu mag ñi de warloowuñ tey xale yi di politique ñu wut péete mm-hmm. parce dañu war a doxee neutre man kenn moomu ma yàlla dëgg la bëgg mm-hmm. tey bu nu amee lu nu wax tey waa kër sëriñ Touba wala tey ñu am lu wax tey benn murit wala ñu ku sant Mbàkke danoo yàpp lu sëriñ si parce que mhm. ñoom rek ñooy prononcé moment fii parce que defuñ ko dara pour seen bànneexu bakkan mhm. man ragaluma Jóob laa sant sëtu buur laa mhm. man ku ma jam ma jël mais na nanu bàyyi ñi ñuy stigmatiser doomu jàmbur yi ñu jox leen seeni bakkan xel comme ñu dee ca àddiyee ñoo ca gën comme ni soxna si wax màkke màkke la lu nekk taale bi mu jaay bakkanam jox ko sëriñam mais nga jël tey am foo xam ne danga fay wone péete loolu du seen cër kenn xaaru leen foofu doomu sénégalais bu ñu am nañ droit tey bu ñu falee Macky Sall. Mhm. tey bu ñu bëggee gisuñu seen bopp seen réew am nañ droit fal feneen keneen ka taxaw tam ne politique wax ku waxul doo dem ku politique doo politique doo dem parce que politique moo fi teg Macky Sall. Mhm. politique tam moo ko fi teggi Ousmane Sonko amul problème ak Macky Sall Macky Sall amul problème ak Ousmane Sonko ci li ma yaakaar. Mhm. population bi ñu am problème ak Macky Sall. parce que ñoom ñoo bëgg mu jóg. d'accord euh, foofu noonu. Mhm. Euh, xale yi boo gisee seen acharnement. Mhm. gis nga comme li waa ji wax. Mhm. gis nga makkaama ci yàlla. du sii du mbàkke du ñas du dara. da di Serigne Touba ko liggéey. kon ñoom bu ñu abusé. bëgg yéeg ci kaw sénégalais yi. parce que dañ leen a teg Serigne sant nañ mbàkke wala sant nañ leneen. xale yi jël seen dund ak seen lépp jox leen yëkkati seen bopp ak seen addiya di leen jox. Mhm. ñu am bëgg amuk péete bëgg jël politique moomale ko seen bopp kër yu rafet yi ñoom oto yu rafet yi ñoom. Mhm. ba kañ. Mhm. xam nga boo demee ba xale yi am acharnement du ñu mag ñi de tey maam maam da baax tey Serigne Babacar si Serigne Touba ñoom daaw ñu dundee alal bu lewul kenn daawu leen commandé fu leen neex la ñuy xool waaye boo noppee lekk xaas bu lewul sa gémmiñ dañ koy tëj ca da nga am foo waxe ak foo noppee mhm. am foo féete sëriñ nag boo demee ba xale yi di la weddi wala ñu am kàddu bu ñaaw bu ñu koy teg parce que du gën ndey gënuñ leen ndey mhm. te gënu leen bàyyi parce que am na ñoo xam ne seen tey ndey liggéey na loo xam ne buñ ne allahuma rek yàlla day nangu kon mhm. yow bul jël loolu nga abusé parce que Sénégal Sénégal il abuse. Mhm. nit dafa lay jël teg la nga gënal ko boppam mu yëkkati la ci kaw nga bëgg toog ci kawam teg ci ndox mu tàng duñ ko nangu. Mhm. loolu moo waral dem na à moment man xale yi du ma leen du ma leen du ma leen approuvé ci ñuy saaga benn sëriñ. Mhm. wala ñu koy ñu koy manqué war ma mais seeni morom yi xam ne ay sëriñu ndaw lañ. am na ku ma dégg benn interview muy wax di wax ak wax bu tàng ak naan waaw Ousmane Sonko dafa dugg ci jumaa ji. dañ fa doon tàcc dañ fa doon nangam. Mhm. mais au nom de quoi. Mhm. nañu génni seen seen làmmiñ kon mënuñu am péete. Mhm. tey xale yi ñoo leen di dox seen lépp di taxaw muy dox tëdd muy dox toog muy dox. nañu may xale yi jàmm. xale yi dañu am ndey am baay parce que man bëgguma ku wax sama doom ñoom ni ñu leen juree mu neex. ñoom seen lépp taarkal la seen maam da leen koo liggéeyal mm-hmm. addiyee di ñëw mm-hmm. ci clim yu sedd yi ci oto kër yu rafet te pourtant ñi leen koy jox dañ koo xañ seen bopp di leen ko jox mm-hmm. kon lan moo tax ñoom ñu war a wut ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci kaw xale yi di leen diaboliser léegi loolu moo waral acharnement bi nga xam ne tey mi ngi am ñuy wax di tudd kii parce que maam Abdou tey kenn du wax kàddu bu ñaaw yëkkati ko teg ko ci kawam tey bu xoli sore rek nga baal mu euh, dama dama kii sama xol daf fees. Mhm. boo gisee tey xale yi di am comportement bu ñuy am da nga leen di comprendre parce que boo juree doom. Mhm. bu defee changement d'humeur rek da ngay xam lan moo tax sa doom. Mhm. mel nii bu dee yaay bu compréhensive ba da ngay jege sa doom. kon ñoom seen bopp bu bëggaatee seen cër ñu jox ko dañuy jox ndaw yi seen seen àq. comme ni ñu ko waxee ñu ngi dugg ci gaal yi. ñu ngi daw. ñi ngi jaay ñi ngi def lu nekk ñu ngi leen di jàpp ñi ngi taaba taaba te terewul lépp ñu ci am rek sëriñ bi am na ci wàll. Mhm. kon pour lan ñoom sëriñ su ndaw si ñu toog sedd fi xaas bi di ñëw doomu jàmbur yi nga xam ne gënuñ leen yaay seen ndey ngi liggéey war nañoo man am lu ëpp lool seen maama leen ko may boo pare ñu war a toog am fu ñu war a teg xale yi bu sànni xeet jotee xale yee sànni ñoom ñu ngi ci ker gi mais terew àndiye bi day ñëw de mhm. mais munuñ mu ñu tëj seen gémmiñ mhm. Sénégal ban Sénégal la nekk nañu may sénégalais jàmm parce que bu méttee Macky Sall dañ ko faloon mu métti lool ñëpp am ci moom yaakaar. Mhm. kon mbirum politique yoonu sëriñ nekk ci. Mhm. alors dañu ma bëggoon dugg sànq mooy li nga doon wax bii passé euh, ci affaire embuscade bi nga xamante ni defoon nañ ko Ousmane Sonko ñu bëri di ñaawlu li euh, policiers yi def mais finalement dafa mel ni dañ ko doon sauver loolu waxoon na ko. Mhm. te dafa mel ni euh, moom it firndeel na ko ci kàddu yi mu yëkkati woon keroog. mooy li ma Sénégal dafa dafa nekk dëkk boo xam ne neexu la dundee comme ni ñu wax neex naa dee mais neexu la dundee. Mm-hmm. mais nañu xam ne jeunesse bi dañu sonn pour sacrifier lu bëri. Mm-hmm. du ma bàyyee bu waxu sëriñ yi de ci laay ne ba tey. d'accord ñu jël damay gis may ma rek mm-hmm. may gale. parce que damay gis ne nit ñi nu ñuy sacrifier seen bopp. chef da ngay gis xale bu dem dugg si si gaal yi dem mais terewul lu sëriñ bu bëgg bu dara teewee. parce que ñun dañu ci dañuy teg suñu bët ci yooyu. parce que mhm. dañu dañuy dañuy dañ leen di jege. Mhm. dañuy ñëw ci ñoom dañ leen di fréquenter lépp dañuy bëgg muy mat bu xéewalu jotee ñu def ci seen doole. Mhm. pourquoi ki war a sonn ci yow tey bu sukuraatee sax bu génnee àdduna yàlla na ma yàlla jéggal yow fuñ koy jullee sax doo ko xam. Mm-hmm. doo jël penn jël sa oto bu neex boobu nga yor te taalibee ñoo ko cotiser jox la ko nga jënd ko parce que ñoom xëyuñu gontuñu mm-hmm. seen barke maam la nuy dundee te yeyoo mm-hmm. nañ ko nga taal sa oto boobu dem teewal sa taalibe boobu ci sa yërmande maam nga ñaan suñu borom nangu ñu xam am nga yëg-yëg ci sëriñ boobu sa sa taalibe boobu muy daw di la topp laxasaay di màjjaal ci naaj bu tàng bi ñëpp xam nañ ne màjjaal dafa metti kooku di sacrifier dundam bàyyi ndeyam bàyyi baayam parce que man dama dama xam ñu laxasaay mhm. jël léppam jox ko sëriñ bi te bu dee amuñ ci moom benn cër bi mu feebar yenn paj gi sax bi ci war moom du ko am mhm. man damaa gis ku dem xel kom dem dem ca tool ya nekk ca ba dog ca waaye daa dellu ci ay mbokkam fa la génnee àdduna mhm. parce que ku ma xam la ku ma jege la kon lan moo tax ñu war a jël acharnement bi di ko teg ci xale yi ba tax xale yi delluwaat jël bal tanks bi dóoraat leen ko mooy. Hmm. xale xelam bariwul da di ñoom seen seen acte de defence mooy gisuñu lu dul saaga si internet bi loolu moo ko andi. Hmm. xasta bi ci internet bi looloo ko looloo ko andi parce que ay mag yu ñàkk teggin dañuy toog ci ay plateau di wax naka su dul noonu. Hmm. di ko jëmale ci xale yi wala di di def ak ñoom saa saafaafaat ci ci ci plateau yi. ba tax ñoom ci seen bopp xale yi dellu ci seen kaw bonde ci seen kaw. deretu xale dafa tàng.